corrigé mooy bu ñu xayma waat lu tax ñu tuddee ko surface corrigée ndaxte kër xam nga ñëpp xam nañ ne mun ngaa wax nga ne terrain bi cent cinquante mètres carrés la waaye soo tabaxee ay néeg néeg bu nekk la miir bi di jël doo ko compté waale booy def lu ñuy wax surface corrigée su ko defee da ngay mesurer ci biir mur yi kon la ngay am mooy gën a néew danga xam ne mooy surface bi yëpp ñu tax ñu koy woowee ba tey surface corrigée mooy ne lépp loo xam ne moo nekk ci kër gi dafa am nuñ ko pàcc pàccale am na loo xam ne moom la ñuy wax euh, li nga xam ne moom la wax local principal bi maanaam ñu tuddee ko pièce principale mooy bépp place boo xam ne ci biir kër gi yaatuwaayam romb na ñetti mètre ñetti mètre mooy 9 mètres carré maanaam guddaay bi ñetti mètre yaatuwaay bi ñetti mètre carré ñetti mètre ba pare hauteur plafond bi maanaam diggante ci fi ngay taxaw ak ci sa bopp mu au moins mu romb ñaari mètre ak genn wàll néeg bu mel noonu loolu néeg lañ koy wooye mu pièce principale mooy par exemple salle à manger yeeg euh, salon yeeg néeg yi nii te ak yooyu lépp loo xam ne daal ëpp na ñetti mètre ci ñetti mètre loolu la ñuy wooye pièce principale mu am lu ñuy ooyee tam pièce secondaire maanaam ñoo topp ci pièce principale yi mooy lu mel nii waañ yi ñuy toggee wala salle de bain wala euh, cabinet de toilette yi ndaw yi wala soo duggee ci benn euh, kër goo xam ne am na benn espace boo xam ne ci genre entrée couloir yeeg yooyu ak sooy circuler fi ngay dox di dem boo xam ne yaatuwaayam romb na un mètre dix bépp boo xam ne yaatuwaayam romb na un mètre dix dañ koy jàppee pièce secondaire mu am tam lu ñuy wax annexe yi annexe yi mooy par exemple couloir yi yi nga xam ne yaatuwaayam tolluwul 1 mètre 10 par exemple li nga xam ne mooy véranda yi balcon yi terrasse yi et cetera yooyu yëpp euh, yi nga xamante ne bii ñoo bindoo noonu ñoom la ñuy wooyee annexe mu am lu ñuy wax dépendance dépendance yi euh, su fekkee ne par exemple ci maison individuelle la maanaam kër goo xam ne euh, yi ñu ooyee këru suuf kër goo xam ne Eh, espace bu kii la nii maanaam maison indépendante la du immeuble bu boobaa dañuy xool li nga xam ne mooy li ñuy wax garage yeeg eh, su dee am parking boo xam ne foo xam ne place la pour auto garé fa te nga muur ko yooyu la ñuy wooyee dépendance yi su fekkee nag immeuble boo xam ne ñu baree ko bokk tam garage yi ci la bokk ak parking yi ak eh, nu nga ko mën a fi nga xam ne fa lañ defal place pour ñi nga xam ne entretien kër gi et cetera ak li ñu wooyee cour aménagé maanaam xam nga tey ji mun nga am cours boo xam ne maanaam espace la bu bu des ci kër gi bi nga tabaxee mais nga nga dër ko mm, wala nga def si ay fleur wala yooyu loolu la ñu ay cours aménagé clôture itam mooy li nga xam ne moo tax mooy aar kër gi mooy miir bi nga xam ne moo ko wër am na tam léegi-léeg ay aménagement yu ñuy woowee aménagement particulier bu fekkee ne par exemple da ngaa defar piscine sa kër wala nga def ay jardin bu rafet donc kon surface corrigée yooyu yëpp lay tas tasee xool ko benn bu ne mu xayma ko pour ki nga xam ne yaay borom kër gi la nga def ci xaalis ci kër gi ñu jël ko en compte donc loolu déjà mooy premier bi léegi nag ñu ne néeg bu ne dañ koy jox benn valeur valeur bi mu ngi. dem ci lii par exemple dañuy xool est-ce que yaatu na néeg bu la gën a yaatu moom la ñuy xayma xayma boo xam ne mooy tax mu gën a seer néeg boo xamante ne bii ni ñu ko tabaxee soo toogee ci biir néeg bi mun nga bañ a taal lumière comme fii ñu nekk mun dañoo taaluñ lumière daanaka te mu ngi leer nañ moo gën a seer néeg bu meloon nii exactement te nga xam ne amut lumière il faut nga taal lumière. néeg boo xam ne bu bees la maanaam coefficient de vétusté tam dañ ko def moo gën a seer néeg boo xam ne dañ ko def ree yàgg na néeg boo xam ne boo ubbee sa palanteer gis lu rafet a rafet moo xam tali bu yaatu moo xam géej moo gis ay jardin moo gën a seer néeg boo xam ne boo ko ubbee li ngay janool mooy doon beneen miir même buñ bokkee place rek yëpp donc yooyu yëpp la ñuy xayma ñu ne waaw néeg boo xam ne ci suuf ciment kese la ak néeg boo xam ne ci suuf dañ koo def karo bi suuf di def karo moo gën a seer bi nga xam ne ci suuf dër kese la su fekkee karo yi bii marbre lañ fa def wala granit mooy gën a seer bi nga xam ne ay karo simple lañ fa def léegi nag yooyu yëpp nag day am ay coefficient yoo xam ne dañ naan waa néeg bi nu mel ñu ne ah am na lumière daal néeg bi ñu ne mel mu ne soo ubbee ngelaw dina dugg néeg boo xam ne moo ëpp ngelaw tam ñi nga xamante ne bii moom mooy euh, gën a gën a seet néeg bi nga xam ne amul garab léegi nag bu ñu jëlee loolu yëpp ba pare ñu ne kon am na juróom-ñaari néeg. Oh, waaye néeg bi ñaari palanteer la am bii benn palanteer la am ñu ne kon néeg bi numéro bi nangam lañ koy jox su ko defee bu ñu paree loolu ba pare ñu xool kër ga ñaata poste d'eau maanaam ndox robinet ñoo am ci kër gi. kër goo xam ne benn robinet rek moo am nga xam ne sooy dem sangoog yëpp da ngay dem rooti dem ci wanag bi moo gën a yomb njëkk ñëpp kër goo xam ni da ngay jël ndox mi ci biir duus bi dafa ubbee robinet bi day indi ndox ñu xool tam loolu yëpp ñaata robinet la kër gi am nu robinet yi gën a bari mu gën a cher néeg néeg boo kër goo xam ne tamit soo ubbee mën nga am ndox mu tàng ak ndox mu sedd bi nga xam ne mun nga am ndox mu tàng moo gën a seer bi nga xam ne amul ndox mu tàng maanaam suuf bi dañ koy jël encore Euh, dañu xol tam vidance manam kër go xam so soo robiné am fu ndox mi dem nga xamné bu ta fofu ci kër ga num gëna amé lolu mo gëna sét ñu né aussi ñu né kon légui est-ce que euh, douche yi nekk ci robiné bi so xëccé sas dina am ndox mo xamné mom moy dem wala dé xam nga douce mën na nekk douce wanag bo xamné pax rek la amul amul amul chasse amul xës lo xam bo boo ndox mi dem boo xam ne dafa am loo xam ne boo ko xëccee ndox mi dem moo gën a euh, seer kër gu amul loolu dañuy xool tam lavabo yi ñaata la ndax am na bidet bidet mooy fi ñuy raxasoo euh, bu fekkee ne euh, dem nañ toilette ba pare wala jigéen fu muy raxasoo loolu lañu ñuy woyee bidet am na tam li ñuy ooyee ay ay lave-mains maanaam ci yenn ruq yoo xam ne day am benn lu mel ni lavabo bu ndaw pour raxasu su amee évier tam dañ koy xool maanaam dañuy càmbar yépp loolu. ñu xool tam bàyyiwul dara quoi. bàyyiwul dara ñu xool éclairage bi lan la euh, ndax am na foo xam ne su dee immeuble la foo xam ne foofu ngay sotti mbali ji te doo wàcc ba ci suuf li ñu ay vide ordure euh, et cetera. léegi nag bu jëlee yooyu yëpp ñu calculer ne nangam moo fi nekk ci ci néeg nii la mel leer na wala leerul am na assenceur wala amul ascenseur loolu yëpp bu ñu ko jëlee ba pare ñu ne nag kër gi ban façon la maanaam kër yëpp dañ koo defal ay li ñuy wax catégorie euh, catégorie mooy ñu ne ah kër gi kat baraag la catégorie mënul bokk ak kër gi nga xam ne euh, par exemple en lañ ko tabax ñu ne kër gi nga xam ne moom lañ tabax en dur ak kër gi nga xamante ne bii ci biir en la ba tey mais li nga xam ne moo fa nekk ci ay matériel moo gën a seer duñu bokk catégorie noonu la ñuy def nag benn kër bu nekk ñu jox ko li nga xam ne moom mooy catégorie yi suñ leen joxee catégorie nag ba pare ñu ne léegi kër gi nangam la catégorie bii la bokk wala immeuble bi nangam la catégorie bii la bokk ñu am nag beneen téere boo xam ne mu ngi koy woowee décret bi nga xam ne mooy wax li ñuy wax surface euh, bâti ak surface euh, ak terrain nu moom mooy wax ne boo demee Ngor wala boo demee Wakaam wala boo demee Géejawaay terrain ba nangam lañ ko xaymaa ne moom la war a jar mett carré bi ñu ne waaw léegi boole si mètre carré boo xam ne dañ koo tabax ci tabaxinu baraak wala tabaxinu diggu dóomu wala tabaxinu lix mètre carré boobu nàngam lañ ko évaluer léegi nag su ko defee xam nga léegi terrain bi ñaata lañ ko évaluer xam nga mètre carré tabax bi ñaata lañ ko évaluer xam nga façon biñ ko tabaxee ban coefficient la doon yooyu yëpp nag ngay boole nag calculer ko nag pour mu jox la njëg boo xam ne moom la ñuy ooyee njëgu kër gi mais njëg googu mu lay jox pour nga mun a calculer li nga xam ne moom mooy loyer soo jàppee nag ba nga xam ne kër gi léegi par exemple ñu ne la kër gi douze la moom lañ ko xayma ñu ne kon léegi dañ ci génne li nga xam ne moom mooy euh, maanaam nu ma la ko mën a expliquer euh, valeur locative bi maanaam ñaata lañ ko war a liyee ñaata lañ ko war a liyee tam mu amaan nag beneen décret boo xam ne moo ne kër goo xam ni comme simple la catégorie bu ndaw la ak kër goo xam ne catégorie bu diggu doomu la ak kër goo xam ne catégorie bu bokk bu rëy la bu ci nekk naka nga koy xayma am na boo xam ne dañ lay wax par exemple da ngay dindi 10 pour cent soo dindee 10 pour cent nga am valeur annuelle bi soo amee valeur annuelle bi ba pare nag léegi nga def nag calculer nag diviser ko par douze pour am valeur bi nga xam ne moom la ñuy wooyee valeur mensuelle maanaam surface corrigée mooy li nga xam ni yoon dafa wax ne kenn amul droit louer kër te defoo loolu ndax boo ko defee yow mi moom kër gi doo loru waaye itam doo lor ki nga xam ne moom mooy euh, locataire bi su ko defee yow di kii ak euh, di kii ak sart sart wi te doo lor ki nga xam ne euh, moom mooy locater bi mais yoon dafa wax ba tey ne balaa ngaa luwee da ngay def surface corrigée mais boo defee surface corrigée ba pare itam denc ko amul njëriñ pour que surface corrigée bi ñu mun koo jël en compte yow dangay ngay def surface corrigée bi balaa ngaa xam ne luwee nga kër gi te ki nga xam ne moom mooy locataire bi balaa muy dugg ci kër gi moo naan bu ngeen di signé contrat bi da ngay jël photocopie surface corrigée bi nga ko jox jox ko ko mu téye moo koy moom pour que surface corrigée boobu valable su fekkee joxuloo ko ko ko valable mënoo koo bàyyi tam mu dëkk ba ci kanam nga door koo jox parce que yoon nee na soo ko ko joxulee ca moment ba muy dugg rek déjà yaa ngi nekk en infraction daan war nañ laa daan rien que loolu kon surface corrigée ñi koy def mooy expert expert boo xam ne dafa agréé nga xam ne dañ ko reconnaître te expert bi tamit ni nga xam ne moom la koy defee yoon moo ko koy sant maanaam bu defee ba xayma ba pare ne kër gi nangam la ko dikk léegi pour mu génnee location bi dafa am benn loi benn texte boo xam ne moom moo koy wax nii nga koy calculer su fekkee ne tam expert bi même luñ ko agréé agréé la nga xam ne moom la war a def defu ko comme ni mu ko war a defee bu boobaa tam yoon day dal ci ko am te surface corrigée boobu du valable am salo prix nangam donc ku bu boba xam nga boko defé di nga lor ñi nga xamni def nañ seen investissement bu bu reuy ci affaire donc lolu motax do wax rek ne way 300 mu salon nangam ndax lolu yépp nak surface corrigée da koy jël en compte donc pour bañ ñu lor ki nga xamante bi def na ay investissement yu bari ci kër ga pour que kër gi nek lo xam kër gu yenu maanaa la président président de façon pratique par exemple que kër boo xamante ni dañ ko fleur dañ ko estimer à 100 millions. pour terrain bi yëpp dugg si. ça pour le rail. Les léegi bu ñu calculer ak taux rentabilité combien dana la war a la a jiire. réglementation par exemple bu da tabax eh, dañ koy euh première catégorie. maanaam ci euh, kër yi nga xam ne kër kër individuel la mu ngi correspondre ak catégorie A ci immeuble collectif collectif yi maanaam mooy bi gën a luxe kooku moom treize pour cent treize virgule quarante quatre pour cent ngay appliqué maanaam boo xaymaa njëg gi da nga koy diviser par treize virgule quarante quatre pour cent su ko defee ci ngay am valeur bi nga xam ne mooy valeur annuelle immeuble bi léegi nag à ce moment soo ko amee ba pare nga diviser ko par douze su fekkee kër gu digg doomu la par exemple li ñuy ooyee euh, troisième catégorie ci kër yi nga xam ne kër yi individuel la wala ci euh, immeuble collectif yi ñu koy wooyee catégorie donc bee ak ñoom 12 pour cent nga leen di calculer 12 pour cent moom ngay calculer mu jox la njëgu li nga xamante ne bi mooy euh, bâtiment bi immeuble bi nga xam ne da ngay jël loolu nag après nga diviser ko par 12 pour am location mensuelle léegi par exemple ñi nga xam ni Euh, kii la euh, ay genre kër yu simple yi nga xam ni euh, maison individuelle la mais catégorie 6 ba 7 7 mooy lu jege comme baraag waaw mooy kër goo xam ne daal vraiment du luxe quoi vraiment bu simple la quoi à la immeuble boo xam ne vraiment bu simple la yooyu moom 10 pour cent la waaw 10 pour cent la ñuy la ñuy la ngay calculer su ko defee boo amee njëg ki ba pare nga diviser ko par douze ndax xam nga gis ngeen gis nga question bi mu posé lu am solo la parce que dangay gis ñoo xam ne soo waxee ñun dañoo leb banque mais xam nga kër goo xam ne yaa ngi ko war a amortir en vingt ans comprendre nga dem leb banque pour cinq ans ba pare bëgg a en cinq ans loo xam ne vingt ans nga koy amortir tamit ba sotti ba boobaa da ngay lor consommateur bi te aussi buñ calculer gis nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, disons ñiy luye kër yi soo jëlee téeméer bu nekk maanaam sur cent locataire cent bailleurs cinquante deux virgule cinq yi pour cent ñoom dañ leen a dañ leen a may kër yi dañoo doon kër yi maanaam dañoo xëy rek kër gi ñu ñëw seen loxo te jënduñ ciment defuñ dara léegi deux virgule cinq pour cent yi dafa nekk ñoo xam ne dañ leen ko may par exemple nga takk jabar may ko kër xam nga kooku boobaa kooku itam ba tey dépensé wul dara léegi nag kon 55% ñi lieu kër yi mënu ñoo wax ne way ciment dafa cher wala kii dafa cher euh, deuxièmement beaucoup les même ci baissent bien nga xam ne am na euh, état wàññil na leen diggante 25 ba 28% li nga xam ne mooy impôt yi te kat ñoom 13% rek lañ leen wàññiloo te wàññil nañ leen impôt loo xam presque 28% la kon donc euh, loolu yëpp pour wane malgré le fait que Euh, étude bi ANSC defoon wane woon na ne ñoom li ñu yokk dafa ëpp ndax su fekkee ne njëgu euh, construction yeeg lépp xaalis beeg yooyu yokk na 44 pour cent ñoom dañoo yokkoon 256 pour cent maanaam juróom-benn yoon la ñu yokk li ñu waroon a li ñu waroon a yokk ndax ngay jëndee dërëm mu yokk dërëm euh, yenu na maanaa nga yokk dërëm waaye nga jëndee dërëm mu yokk dërëm nga yokk juróom-benni dërëm loolu lañ def ñoom ko defee nag da gis koo xam ne dalay wax ne ah man kat kër gi lieu ko lu seer ndax ñii ngi lieu trois cent mille mais man damaa wàññi def deux cent soixante ba pare ngeen ñëwaat ne naa wàññi fekk ne moom xaj na bu defoon surface corrigée xaj na deux cent mille la war a laaj pourtant mu ngi jàpp ne wàññi na loolu moo tax yoon dafa wax ne kenn amul droit luye kër te jaarale woo ko ci li nga xam ne mooy surface corrigée ba pare itam nga jox ko copie bi sinon yoon day dal sa ko te nag ku luye kër goo xam ne yaa ngi ko luye njëg gi mu gën a seer li yoon wax yoon dina la daan ñaari weer ba juróom benni weeri kaso ak vingt mille ba un million cinq cent mille francs CFA li nga xam ne mooy alamaan wala benn ci ñaari weer kon nag ñu xam li yoon wax di ko respecté di ko wëttu mooy li ñuy santaane dafa am li ñuy wax maison à usage d'habitation location a usage d'habitation su fekkee kër gi location à usage d'habitation la doo fay taxe yow locataire bi doo fay TVA li nga fay li nga xam ne moom mooy taxe sur les ordures ménager maanaam pour mbalit yi ñu koy jëlee mais doo fay TVA ñiy fay TVA mooy ñi nga xam ne usage commercial la. mais le même même même le même dafay fay taxe euh, ménagère si facture courant ba pare bayee bi def ku jëlal fay. déedéet li ñuy fay loolu taxe communale la bokkul ak taxe euh, sur les ordures ménagères. tom fa tom bokkul ak li nga xam ne moom la ñuy fay au niveau de de de de kii de euh, électricité bokkuñ quoi taxe communale la beneen taxe la. waaw jërëjëf li nga xam ne moom mooy agent immobilier yi. ak agence immobilière yi ak courtier yi. ñoom seen liggéey am na benn texte boo xam ne ñu ngi koy mool presque pare naa nga xool yenn détails yi sew yi moo ci des ndax ñoom ci seen bopp euh, suñ leen régulé wul day tax affaire location bi compliqué d'ailleurs boo xoolee décret bu bees bi nga xam ne jël nañ ko le premier mars dañ ci wax ne léegi commission bi nga xam ne moom ngay jox commission agence léegi genn wàllu weer la parce que tam ngay fay weer cent mille war a fay commission cent mille commission cent pour cent moom vraiment gisuñ ko fenn donc looloo tax Euh, ci décret bi nga xam ne moom lañ dugal premier mars ñu def ci ne kon léegi au lieu nga fay un mois de loyer da ngay fay genn wàllu mois léegi nag am na décret boo xam ne moom bu génnee ñoom ñooñu ñëpp dinañ leen wax yoon wi ñu war a jaar ndax bu fekkee ne ñoom ñoo war a gindi ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi te ñoom comprendre luñ loi yi li ñu wax texte yi ñu wax ñoom dañuy dugal nit ñi ci erreur kon looloo tax tam mu am benn texte boo xam ne ñu ngi koy finaliser pour que ñoom ñu teg leen ci yoon. xam naa peut-être pour une dernière question bon décret bi ñu ngi ko ñu ngi ko xaatim depuis le premier mars. Mhm. mu xaw a jël quelques weer. Mhm. donc actuellement fan ngeen toll xam naa vous avez beaucoup de travail avec les contentieux. voilà et cetera donc tay fan ngeen toll par exemple. waaw tey fi ñu toll boo koy xool ñu ngi à peu près ay 2200 mille deux cent et quelques euh, li nga xam ne mooy réclamation yu jëm ci loyer bi c'est à peu près 1 pour cent. de des location qui à Dakar kese te loolu c'est au niveau national mm-hmm. parce que Dakar kese dernière fois bi agence nationale de la statistique defee li nga xam ne mooy xayma bi mm-hmm. ne woon na dafa am cent quatre vingt mille quatre cents logements en location mais loolu yàgg na donc fi ne nii dem nañ ay deux cents et quelques mille yoo xamante ne bi soo ko appliqué ci appliqué yi nga xam ne ñoo am contentieux à peu près ay 1 pour cent lay toll donc daal ça veut dire que ay presque 99 pour cent ñi nga xam ne ñoom location réclamé wuñ dara donc ça veut dire que le taux de de d' application est très élevé waaw waaw foofu